seen jëf euh, mbokku téléspectateur yu Thiès TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziyaara leen ni ñu koy defee rek saa su ne su gàmmu Ndiassane teroo yàlla dogal ñu ciy tànn ay góoru yàlla yoo xam ni seen taxawaay bu am solo ak boroom njaasaan tey nag ginnaaw bi cérémonie bi jeexee ci jëmm yi nga xam ni lañu bëgg waxtaane as tuut liñ xam ci ñoom muy suñu maam boobu di maam bu ma mbay nga xam ni liggéeyam ci wàllu diine ak ci njaasaan ak wilaaya ak daraja ko yàlla mayoon ñëpp ba xam nañ ko waaye tey nag ñu ñëw ci bërëb boo xam ni dañu fi fekk njabootu boppam njaboot joo xam ni fay maam bu naa ma mbay ñoo seede ci moom yëkkati ay kàddu taxawaay am solo mi nga xam ni sa Elhadji Abdoulaye am na ko ci ëttu maamam waaye am na ko ci réew mi li ñu naan nag du ñu fi ñëwee kasket bi nit ñi miin dëgg la yàlla dogal na bërëb bii ñi ko miin ku ne xam na ne Alioune sàll di wóolëreem yàlla dogal muy frère ci président Macky sàll nga xam ni genn wàllam la léppam la jox ko responsabile yu yaato yaatu fii di ëttam waaye nag li ci ëpp solo mooy koo xam ni sa maam liggéeyam ci diine mooy lépp loo xam ne yoonum njub la lépp loo xam nit ki dina fegu ba am loo xam ni ko mën a dundee ci sa teeyu bakkan bañ a teg pexe ngir dund seen maam nekkoon ca te yàlla dogal ñu nekk ca ba waajuram wu tedd wii la ñu fas yéene jox incha allah micro mu wax ñu tuuti rek ci góoru yàlla bi nga xam ni am na fu rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin seyduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullah yéen waa Thiès seen ñëw fii kontaan nañ ci ñi ngi leen dalal jàmm bu baax di sawar nag bu baax ci tontu loolu ngeen ñu laaj ci bunaamu Mbaye ci digganteem ak seex Bou Kounta ak histoire am ci Ndiassane ñun Ndiassane ay taalibe lañu fi mais dañu fee bokk ndax euh, Cheikh Bounama Kounta ba mu jógee Asawaat di ñëw fii Sénégal ñaar fukki at la am am ñu naan ñaar fukki ak ak ñaar mais li gën a wóor ñaar fukki at te bu ñuy wax intégration africain Cheikh Bounama Kounta moo ci jiitu ndax bi muy ñëw fii amu fi ndey amu fi baay amu fi mbokk benn doomu aadama bu am ñaar fukki at ñëw ci réew ak olof ni mu mel tarixa bu ñu fi mënti woote rek woote nga sa biir yi mbokk woote nga say ndiyaay woote ci say baay moom mu ñëw nekk fi benn doomu aadama boo xam ne bi ñaari taalibeem la àndal ñëw fi ah li amoon ci histoire ba yëpp sax ci ñëwam fii ba tax mu dëkk fële ci ndànk du xaj émission la quoi du xaj ci waxtaan bi mais dañ koy gàttal rek ba mu ñëwee suñu maam maar mbaay la fekkoon foofu ah histoire ba coow histoire ba fa amoon ci digganteem ak dammeel yooyu yëpp ba xar baax yooyu yëpp génn ki ki suñu maam la boo ko gisoon waxoon ko ko dammeel ba ñu daggaloon ko ndàq foofu mu dëkk ci gàttal ci tënk suñu maam jooju na bokk si ñu ko njëkk a gëm am doom tuddee ko muy Bunaama Mbaay Bunaama Mbaay boobu nag bi mu koy tuddee Seex bu naa Bunaama Bunaama Mbaay moom ak Seex Bu Kunta mi sañ fi Njaasaan tey Seex Bu Kunta bi muy bi ganee àddina fekkul baayam ci àddina bi mu ñëwee fi mu jaar dëkk yi mu jaar ba ñëw Njaasaan yëpp dañuy tënk rek ndax xaju fi fi mu ñëwee sañc Njaasaan fii suñu suñu maam Bunaama Mbaay sax ñëwul fekk si ko tëbul te fekk si ko dañ ko wax ni ko Seex bu Kunta boo bëggee Bounama Mbaye ñëw te boobu moom bëgg na Bounama Mbaye am na jaar-jaar yu bari yu ñu jaar yoo xam ne ay histoire la da ngay fexe ba indi doom ji doom ji la gën a bëgg muy Makhourédia Mbaye Makhourédia Mbaye ñëw fekk si fii Seex Seex bu Kunta Seex bu Kunta daggal ko fi kër daggal ko fi ay tool Bounama Mbaye fekk si ko fi nekkoon ilimaanam fii di jiite si jàkk ji ñu dama koy tënk ci gàttal ba yàlla suñu borom def mu génn àddina seex bu kontane nañ ko rob fii bu ma génnee àddina nañ ma rob ci wetam loolu moo tax ñun suñu maam nekk ak seex bu kunte ci raw bi ah façon façon nag teraanga bu nekk xam-xam bu nekk lu baax lu nekk def na ko suñu maam suñu maam bu naama mbaay ba mu génn àddina ñu des fii noonu la fi suñuy maam nekk xalifa yi fi nekkoon premier xalifa Cheikh Bou Kounta di Cheikhul Bekaay Kounta nekk na fekk suñu maam moo ko dee jàmbaay deuxième xalifa Cheikh Sid Lamine Kounta nekk na fekk suñu maam moo ko dee jàmbaay troisième xalifa Alhaji Mamadou Kounta ku fi moo ko dee jàmbaay mais fekk na fi suñuy suñuy waajur Alhaji si Ali Mbaye ku ne xam na ko Sénégal waajur la ci Bekaay Mbaye Bekaay Mbaye benn fii fii fii ngeen di ma suñu kër gi fii mooy këru cosaanam fii la dëkkoon suñu waajur boobu Sida Ali Mbaye nekk na fi ak alaaji Mamadou Kunta ba mu génn àddina mu nekk fekk sax Sidi Yaxya Kunta ba jamonoy Cheikh Bou Kunta mi nekkoon caatu Cheikh Bou Kunta moom itam bi muy gane àdduna fekk fi baayam Cheikh Bou Kunta ngi duppeeku ci jamonoom ci la suñu waajur Sida Ali Mbaye génn àddina léegi ñu nekk fi ak alaaji Mambu Mamadou Kunta baalaañu membre jóge fi ñu nekk fi ak seexul bekkaay bekkaay ñun suñu lépp njaasaan la dañoo bëgg njaasaan suñ cosaan njaasaan la lu ñu am fii lañ koy indi si njaasaan ah Ablaye moom nga wax nag loolu nga wax wax wax dëgg la Ablaye genn wàllu Alioune Sall muy homme muy homme de confiance di liggéey ak moom ci lu bari jël ay confiance yu bari jox ko ko dénk ko mu yore ko at mu jot sax yàlla def na yi ci ëpp fii lay gàmmu kon bu ngeen ñëwee du ñu laaj ci loolu suñu diggante ak maam bu naamu mbaay noonu la demee noonu laa la ko tënkale daal ci histoire waaw jërëjëf ah. waaw ci jaasaan dama koy njëkk a wax si ñu ñi ay waajoom parce yàlla dafa wax si alquran nii wa qadaa rabbuka an laa taxbudu ilaa ilaa iyaahu wa bil waalidayni ihsaanan di aaya ba banaan la wala taqul lahuma uffin wala tanxarhuma wa qul lahuma xawlan karima loolu nag suñu borom wax dénkaane ko ci waajur yëpp man mii di waajuram muy sama taw def na ko ci man def na ko ci ay mbokkam d'abord parce que balaa may wax ci dëkk bi damay wax d'abord si man mi ñu ñi ay waajuram dëkk bi nag fi la fi la juddoo bi sax géejawaay la juddoo fa la jànge mais fii la cosaanoo fi léppam fii la Ndiassane waa Ndiassane ñëpp la amal jàmm te lu mu am def na ko si Ndiassane te li mu contribuer ci Ndiassane bari na kenn mënul toog fii di ko lim mais lu mu si mënti def rek dañ koy gërëmee président euh, monsieur le maire Aliou Sall ndax moom moo ko yar si wàllu politique lu nekk si moom moom la maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah, di commencé nag sama nuyoo ci sunu xalif général sëriñ Bekkaay Bekkaay di nuyu waa axluy kunt yi yëpp tubaarkàlla gàmm gi di gàmm guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ciy am mbégte lool nag di ñaan ci yàlla nii ñu ko teewee ren yal nañu ko teewee nii nag ni déwén kenn bañ a manqué ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah di nuyu sama borom kër bu baax bi di papay Ablaay di di ko jox wàccuwaayam di kontaan ci moom bu baax nag di kontaan ci Ablaay mii di sama doom macha allah di ko ñaanal yal na ko yàlla taxaw yal na ko yàlla suturaal yàlla làq ko fa yàq àggul yàlla bu mu yàqu yàlla bu mu yàqule ci barke yonent bu tedd bi ndax sagal nanu tubaarkaal la suturaal nanu sag bi mu ñu defal ak sutura bi yàlla nag ko yàlla delloo ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam baax rek laay sedda ci moom ak bëgg ay waajuram bëgg ay waajuram Ablaye bu amul ni gàññ rek étage bu bariwul kër yi bariwul oto yi bariwul ay waajuram la man mii dafa jël billet Màkka jox ko papaam papaam jël ko joxaan ma ko ni ma dama la koy gërëme ma ne ma ko ma ko ciy sant bu baax a baax a baax ndax su ma demee rek ziyaara ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mi bu jëloon billet bi dem kon yàlla day def dama naan bu déwénee ma dem waaye man dama koo njëkk jox ne ma yaay jigéen yaay dem ma koy sant sama taaw bu baax bii nag xam ne lu jiin njaaga moom mooy njaag yàlla na dund moom it ba ziyaara ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma waajuram ak képp ku fa bëgg a teew yàlla la fa yàlla yóbbu ci barke yonent bi di kontaan ci moom bu baax di kontaan ci ñëpp di leen nuyu nag bu baax a baax di leen nuyu yéen di leen jox seen wàcc waaye waa Thiès TV xam ne li ngeen def macha allah am na solo macha allah yal na yàlla barkeelal seen télé bi yàlla barkeelal seen rajo bi ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam jërë ngeen nga xam ni suñu waajur yëkkati ne ko wax ko ci góoru yàlla bi nga xam ne tey moom lañ doon wan mbokki Sénégal ngir ñu xam ko gën koo ràññale ci liggéey bi mu am waaye sëtam bi tamit ni ko waajuram waxee rek muy lu am solo lépp lu doomu aadamay def bu jiitoo ci ay njabootam rek lépp mën na dama xamul nag sëñ Ablaye ba xam dafay jël kàddu bu fekkee kàddu waajuram rek daf ko doyloo ñu doog a jox Oustaz Moussa ñu tëj bu fekkee sëriñ Ablaye rek am na message bu muy joxe ñu jox ko bu dee ñaari minute bu jànnalee rek incha allah jox Oustaz Moussa waat mu def synthèse bi. asalaamaaleykum. waa Thiès TV maa ngi leen di nuyu di leen dalal bu baax di sant bu baax ci seen ñëw bi di ci rafetlu bu baax daanaka euh, sama papa wax na lépp parce que foog naa ni bu waxee ba pare sax amatuma lu ma ciy dolli lu dul di leen sant rek ci yëg bi ngeen ma yëg ak tamit euh, xalaat bi ngeen xalaat ni xëy na war naa mën a intervenir ci tale bi euh, loolu rek defe naa doy na sëkk di fasante yéen kóllëre tamit incha allah xam naa ni. xaw nañoo am tuuti betteel rek ci visite bi te buñ ko xamoon doon nañ ko gën a préparer bu ñu xamoon thème bi aussi doon nañ ko gën a préparer pour mën ko approfondir mais xam naa ni daal dinaa leen invité géejawaay bu soobee yàlla ngeen ñëw géejawaay ñu def fa émission bu ngeen bëgg ñu waxtaane ko incha allah ñu ngi leen sant di leen gërëm waaw. mm ciy dolli mooy euh, comme li ñëpp di wax rek xam nga dafa am loo xamante ne xëy na dañu toll ci li ñuy wax crise des valeurs mu nekk euh, li nga xamante ne ak jamono ji maanaam xale yi dañoo dem ba dañoo gëlëm daanaka euh, amatuñu conscience ñii amatuñu yar ñii xàmmeetuñ gauche ak droite yu mel nii tey gàmm yu mel nii ak kër diine yu mel nii dafa bokk ci liy defar nit ñun chance bi ñu am. géejawaay lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañu màggee mais yàlla dafa def ñu am chance su bokk njaasaan am loo xamante ni jëlee nañ ko fi te loolu muy doon lu ay valeurs yu baax te loolu bu yokkuwul du wàññeeku kon daal wax ji mooy nañu delluwaat ci cosaan li ku nekk gëstuwaat xam sa bopp topp say ndigalu wayjur topp say ndigalu wasila fexe xam ni tamit euh, yàlla moo yor wërsëg ku nekk li nga war a def def ko immigration da baax na. mais nga def ko ci légalité nga teg ko ci yoon mais kanta di jël ay gaal di dem moom loolu moom baaxul te wóorul te gisuma tamit lu ko fi jar parce que àddina bi aussi tamit euh, dabu sa wërsëg moom euh, maanaam yàkkamti ko wóorul mooy indi yi yëpp daal bu ko defee tamit ñu gën leen a conscientiser rek ñu toog seen kër yi état bi aussi gën a jël ay matukaayam gën leen a accompagner parce que loolu aussi am na solo pour que ñu mën a toog ci seen euh, seeni projet mën a liggéey loolu daal message boobu laa ci doon wax. ay waajuram ñoo aye waaw liñ fiy wax lépp liggéey ay waajuram lañ bis bu ñu doxee ba dem ci kër doomam doomam ñu nuyoo mu ne xaar leen sama waajur ñëw su boobaa buy wax ay doomam toog ñu xam ni Ablaye moo aye waaye tey lii lépp ay liggéey waajuram lañ dañ naan damay jël baat bu sëriñ Mohamed waxoon mu ni kenn ku ne na nga lu fas jom liggéey ngir am bu fekkee sa àdduna da nga koo bëgg a jël wékk ko ci lu yomb bëgg caa dund te bëggoo ñafe nit dana la romb yor teraanga nga diis ko sa aajo fajalu la ko soo génne da nga kii dafa soxor fekk soxorul ba nga tollee ci war a wuti da wutiwul kon nag ndaw gu ne rek na jël ci référence njaasaan yi xam ni am na ci ndaw yoo xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi jaamu yàlla topp seen waajur lay seen wërsëg yàlla wërsëgal leen ko ñu ci bokk ak ñu ko sékkal kon nag lii la ñu jëlee woon fii rek sëriñ Ablaye di ñaan suñu borom yàlla kàttanal ko wax dëgg yàlla di seede tamit sëriñ Bekkaay Kunta mi nga wax li El Hadj Bekkaay yàlla dogal na tamit heure bu ñu ñëwee Njaasaan bu ñu dajeek moom cérémonie ba wala ci bis yu mel nii danañuy bàyyi xel bu baax a baax dañu encouragé ci métier bi ñu ñaan yàlla kàttanal yàlla taxawu leen lii la ñu jëlee woon rek fii ci njabootu. maam ma Mbaye waaye jaare ko ci maam Alpha mi nga xam ni maam Sidi Mbaye moom moo ko meññ waaye fekk fi ak suñu Ablaye ñu sant leen baax ak yërëm ngeen jërë ngeen jëf